nit ñi leen yóbbu du neen te ay fan yu néew beneen gaal dina dem. Hmm? billaahi lazi laa ilaaha illaa huwa. sëñ bi dégguma ne gaal gi li ko daaneel du neen te nit ñi li ko daaneel du neen. jërë ngeen jëf mbokk internet Cinevox Plus ñu ngi leen di jaajëfal bu baax topp gi ngeen ñuy topp waaye rawatina ànd bi ngeen ànd ak ñun tey nag dañoo ñëw fii ci Mbour fekk si ki nga xamante ne kenn dootu ko présenté ci xam-xam waaye mi ci wàllu lasaar tey nag ñu fekk ak anam bu doy waar ndax nag wax dëgg fi yàlla gaal ga nga xamante ni dafa suux nit ña téerijee mbuur mbokkam da cee bokk ay xaritam bokk ci mu doon loo xamante lu mu yàggoon wax la waaye loolu lépp dinañ ko waxtaanee doon koo xamante ni wax dëgg fa la jàmbale ci xam-xam waaye jàmbale ci wàllum lasaraar tey nag ñu fekk këram gi nekk mbuur fas yéene siqa mu waxtaan waaye laata loolu dañ koy bàyyi mu nekk mbokku internet yi sëriñ ji li sëtul daawur maa ngi lay siyaar di la nuyu. bismillahi dund rahmaani dànd dand lañ may gisee waaye dund lañ may bàyyee na walid saalit daalit bismillah yàlla kenn la mm-hmm. yàlla tiifu yàlla tiifu yàlla tiifu ajuma jum ajuma tax a jum ngum saare doj fa tul ku tabaxul doo toj te bopp ñaar xaju ci moom moom maa ngi lay ñaanal jàmm mm-hmm. di ko ñaanal sëriñ Saali muy toog di ko ñaanal ñëpp di ko ñaanal samay mbokk bismillah mm-hmm. sëriñ bi tey anam miñ la fekkee wax dëgg fa anam mu doy waar la ndax avant dañu lay daal di jaale sa mbokk moom nga xamante ne moom moo des ci gaal yàlla ko suñu borom yërëm te yéexe ko di ñaanal bépp mbindeef bo xamanteni ci la bokku wala képp ko xamanteni am nga ci mbokk tay señ bi ñu fekk ci la fi go doon kilifa bokku ci nakari doon sax nakaru bi aduna bi yépp la waaye rawatina wa Sénégal señ bi tay lan ngay am lan nga xamanteni mom ngay wax ci gal gi bla ñu ñëw ci li nga xamanteni mom moy question yu dëgg-dëgg ak bi nga déggaloon nan la def en tant que kilifa. ñoo ngi ñaanal ñëpp jamm di ko ñaanal suñu bopp. Mhm. di ñaanal képp koo xam ne maanaam nga ci gal gi. Mhm. ñi feeñ yàlla na yàlla fëgg seen bopp ba maanaam wàllum gaal moom duñ ko xalaatati. Mhm. ñi nga xam ne tamit maanaam ñoom ñoo làqu ak ñi nga xam kenn gisuñu leen. Mhm. yàlla na leen yàlla yóbbu ci àjjana yi kawe kawe kawe. Mhm. di ñaan tamit maam ñi fi nekk tam nekk seen xel yàlla na ko yàlla génne seen bopp. parce que dafa bëri daal ñoo xam ne dañuy dem te leen yóbbu sax xamuñ ko moom. ndeysaan. Hmm? moomoo billahi lazi laa ilaha illa huwa dafa bëri ñoo xam ne dañuy dem maanaam eh, te leen yóbbu sax xamuñ ko te li leen di yóbbu sax xamuñu ko waaw maanaam ñooñu ñu ñu mat a ñaanal lañ ñu mat a ñaanal waaw parce que eh, gaal gi nii dafa garaaw de ñi ci dem ñëpp da ngay dégg seen mbokk naan ñi suñ koo kafee da dégg maam ñu ci bari seen mbokk naan ñi musuñoo wax sax ay waxu gaal mais li leen yóbbu duñ ko xam mhm. moomoo waaw dëkk bi dafa laaj ñaan dëkk bi dafa laaj ñaan. billahi lazi laa ilaha illa hu dëkk bi dafa laaj ñaan moom moom. dafa am euh, wax naa ko si sama émission yi jàll man dafa am maam lu bëree bëri bëri loo xam ne dafa daanu ci Sénégal nekk ay rab ak ay jinne yoo dañuy dugg si xelu doomu aadama yi di leen def looloo xam sax duñ ko bëgg def. Mm-hmm. te bu koy wax jamono ñu tudd tey te jamono ñu tudd nii mbir yi mi ngi bëgg a feeñ moom. dëgg la. dëkk bi dafa laaj ñaan. sëriñ bi. Mm-hmm. ci jamono ma ginnaaw ak yow bi ñu defee vidéo boobu sax yàggul nga ne moom dëkk bi dafa laaj sarax boo moytuwul géej gi dina am ay gaal yoo xamante ni dinañu daal di daanu wala ay gaal yoo xamante ni duñu yegg tali bi tamit bu ñu ci deful sarax dina am ay choc wala ay accident yu métti yu ci amoon mais laataa loolu sëñ bi gaal gi nga xamante ne moom moo doon dem tugal te far suux gaal gi jàpp nga ni li ko daanale ak neen la ak bi ngay wax loolu fan nga ko tegoon nga ni jamono yi néew dina am gaal gu daan naa bi ñu defee émission gi léegi bu matee euh, bu matee trois semaines ci la yam dëgg bi ma ne la dina am gaal goo xam dina daano accident yi dina bëri. dëgg la euh, pourtant waxuma ko pour wax nii rek dama ko wax pour maanaam euh, ñu sàkk ci pexe. Mm-hmm. mais dañ lay dégg duñu la lijjanti duñu la faal man kilifa yëpp a may seetaan. dëgg la kilifa yëpp ak may seetaan dañuy xam li may wax mais maam duñ ci jóg. dëgg la bu ko defee ñun dañuy seetaan rek ñun suñ kurus lañ mën a yor ak ñaan def li ñu war a def. Mm-hmm. mais mënuñoo dajal lépp. Mm-hmm. gaal gi li ko daane du neen nit ñi leen yóbbu du neen te euh, ay fan yu néew beneen gaal dina dem. billaahi lazi laa ilaaha illaa huwa sëñ bi dégguma nga ne gaal gi li ko daaneel du neen te nit ñi li du neen nit ñi li leen di yóbbu du neen te ah, fan yi buñ ci jugul dina yeneen yi gaal dinañ dem wax nga mu si wax ndax moom moom nit ñi leen di yóbbu du neen man mi ah, sama mbokk da cee bokk sama xarit dañ cee bokk dëgg la jour bi ma demee ci morgue bi waaw ah, di seet man ki nga xam ne sama doom bàjjan na daf cee làqu mhm. ci la sama téléphone sonné ay ay ay nit di ma woo di ma seetloo na ñoom dañoo bëgg a dem ci yoon bi man leen sama waa ji xanaa ah yéen yëgoo leen li xew man maa ngi ci morgue bi nii sama sama benn dob bàjjat na moom moo fi nekk moom laay seet xam lañ ma mhm. ah bi ñun soxlawuñu ay réseau de muraar mhm. boo ñu mënee ñaanal nga ñaanal ñu hmm? billahi lazi ñooñu nga xam ne ñii dañuy wax loolu yow yaa ngi ci morgue bi di seet sa mbokk man maa ngi ci morgue bi di xaar sama mbokk génn pour ñu jëli ko suuli ko man leen ah génn leen ci loolu ñu ne ma dañoo bëgg nga seetal ñoon man leen génn leen ci loolu man du ci seet ñu ne ma soxlawuñ nga ñuy jox ay réseau de muraar ñun dañoo bëgg a dem automatiquement hmm? da ngay xam maam ñi ni leen yobbu du neen. leen di yobbu du neen. voilà. sëriñ mu doon lo xamanteni lu doy war la waye dafa am lo xamanteni dafa jaar xal Sénégalais yi ndax yag nga wax géej gi dañ ci def ay sarax tali bi dañ ci def ay sarax ginaaw bi lolu daano bi lolu amé gal gi daanu ñu gis benn nak boo xamanteni dafa taxaw jakkar gi di joy sax dakk nañ ko ba son nangul dem waye bi lolu la. momo dama la ne euh, aduna bi. waaw Euh, ak Sénégal euh, da dara nekku fi loo xam ne maanaam euh, dara nekku fi hasard. dëgg fii loo gis rek maanaam am na lu tax. Mhm. nag boobu noonu ñëw bi ci taatu pere bi di jooy noonu. waaw nit ñi ñoo ko jàpp mais nag bi dafa am lu muy wax. ah. billaahi lazi laa ilaaha ndax boobu nag boobu ngeen gis noonu lu muy wax léegi nag yéen bu ngeen ko xamul. waaw ñun ñi nga xam ne ay boroomi xam-xam lañ. wala ñi nga xam ne ay pël nañ yàgg nañoo nag dinañ mën nañ la wax li nga xam nag bi daf ko doon wax. Hmm? parce que dëkk bi dafa waxuma la ñaanandoo dëkk bi dafa laaj ñaan dëgg. dëkk bi dafa laaj ñaan dëgg mais gis nga buñ ci la buñ ci deful ay ñaan nii. Euh, wax ma la dégg dina gën a bari accident yi dina gën a bari nguur guñ fi mënti teg soppeeku du am. du am. ban dëkk nga gis bu amul ay ñaan ban. dëgg la. mais moom buñ la denkee réew xam ne dañ la denk réew moomoo. Hmm. la ca war demal nga def ko mais bul xool maanaam euh, yow sa intérêt rek. te mmh. tey bu continué nii nit ñi dinañ jeex de deux cent personnes euh, ñi ci feeñ ma matul vingt personnes. dëgg la ñeneen ñi anañu. Mmh. ñooñ lan mënoon a réew mi. dëgg la. tey lii rek ngeen gis ak ñi jotoon a dem. Mmh. maam dalay lenn maam lu ma lu mat lu ëpp mille personnes. ci ans yi wala trois ans yi euh, géej gi jël na leen. mille personnes bu ñu jógee ci dëkk euh, lu lu ci des. dëgg la. dëkk dafa am loo xam ne danga koy ñaan maanaam nga tee dëkk bi. Mhm. ba xelu nit ñi loo ci bëgg a def da ko ciy def politiciens yu bëri xam nañ loolu dëgg la ah, ñoom nag mën nañoo dem ci sëriñ yi wala ñim liggéey waa dëkk bi waa ba waa dëkk bi jox leen bopp mais mënuñoo dem ñaanal waa dëkk bi loolu fu ñu ko teg moom lii mhm. daaneel géej gi ñoo la ko gën a xam de. moomoo. Hmm? dëkk bi ñaandi ci war nañ ko def. dëkk bi am jàmm nit ñi am jàmm. kon sëñ bi li gaay naan nguur gi da cee war a jóg ak nguur gu mu mënta doon li ñu nga wax bu ñu ko deful ci lii la dëkk. ci lii la ñuy dëkk. ak nguur gu mu mën doon automatiquement nit ñi li leen yóbbu du naturel moom wax naa la ko waxat la ko. jàpp nga ne da ngay jàpp ne ànd ñoo seen sokow. ànd ñoo loolu mais loolu dëgg la man ñaata nit ñoo ma ci woo pour ma ñaan leen leen du ma leen ci ñaanal. wax leen li nga xam ne maanaam moom moo ci am comme danger mais duñ la déggoo bi dégg amee pare ñaari fan nag bi ñëw ba ci biir géej gi di wax li muy wax ñu ñii ñu xam ko. mais lan la ñuy def lu dul génnaat maanaam sensibiliser nit ñi. mais sëñ jotul tamit yéen ñi nga xamante ne yéen faral ñaan donte yow ànd nañ ci fan yi ci ginnaaw nga dugg ci àll bi def ci ay sarax. est-ce que jotul tamit si sa moyenne bopp nga def li nga parce que xam naa ne Sénégal li ñuy mooy loolu yow tamit lan ngay xaar pour def ko. moomoo ah yow bu bu ko sénégalais di laajte tamit yow xanaa laajte woo ko. Mhm, dëgg la. parce que man ak yow chaque jour ñoo ngi ànd ma li nga xam ne mën naa ko ak li nga xam ne xam naa ko ma koy def mais nit mënul dajal lépp moomoo. dëgg la. nit mënul dajal lépp. dëgg la. ñi ngi ci war a àndal ñi ngi ci war a dooleel dañ lay dégg ngay wax duñ la lijjanti te alors que ne maanaam liñ ci war a def ñun xam nañ ko mais mënuñoo dajal lépp. dëgg la. man ñaan gi may ñaan rek laa xam sama kurus laay man li may ñaanal fii Sénégal mbindeef ki dox ci kaw suuf billaahi lazi laa ilaaha illaa huwa ku mhm. fi génn ne ne ne moo ëpp man li li muy ñaan. Mhm. Sénégal ci man. waxul mhm. dëgg. Mhm. dëkk bi li ma fiy tëju di ko ñaanal sëriñ buy dox ci kaw suuf xut bu zaman wàll yoo amul nit ku koy def billaahi lazi laa ilaaha illaa huwa mhm. parce que dama ci xam lu bëri dama ko téye nekk sëtal ak daaw xam li war a xew ci dëkk bi dëgg la gis musiba di waaj ñoom ma toog liggéey ci li ma ci liggéey gaal gi ñaata yoon laal ko wax te boobu demagul dëgg la xam gaal gi septembre bii la mhm. ah ñaata yoon laa ko wax te boobu gaal gi demagul dëgg la ñu ciy def lañ ciy def mais moo lu ëpp tuuru sama waa ji ñu voilà. macha allah mi ngi noonu sëriñ ji li sëtul ak daawar mu doon jàmbaar loolu ci wàllum xam-xam waaye tamit mu doon jàmbaar loolu ci wàllum lasaraar mais sëriñ bi tey yow mi nga xamante ne suñu borom dimbale ci wàllum xam-xam ndax sénégalais amaana ñàkkul ni sax ñu ngi lay gis ñu ngi lay bàyyi xel ndax vidéo boo ci waxoon rek mi ngi ci bi rombul youtube bi bu duggee ci page bi di waxtaan lu baree baree baree baree baree baree baree mais sëriñ bi tey ban anam nga jàpp ni yow war nga ko mën a dimbalee askanu Sénégal ak ñi nga xamante ne ñooñu dem ci gaal gi ak sok yi nga xamante ne bari na askanu Sénégal dama leen a wax ne. Mhm. képp ku bañ maanaam ay jafe-jafe yi nga xam ne am na ci dëkk bi mooy accident yi. waaw muy ñii di dem ci géej gi te demee mu teg sago. waaw jeudi bu jotee. Mhm. dee leen génnee seen kër yi ñetti ndabu laax. jeudi bu jotee da ngeen di sol yére bu xonq surtout jigéen ñi. ku ko ciy def di nga lor sa bopp loraale ñeneen. sarax yi génn leen ko mbubb yu xonk yi ngeen di sol ngeen bàyyi kon parce que yéen a ngi doolee rab yi nga xam ne dañoo dugg ci dëkk bi ak jinne yi dugg euh, xelu doomu aadama di leen def looloo xam ne ñoom bëgguñ ko Hmm. lo buñ ko defé lu bari mëna na hmm ñi nga xamné ne dëkk bi. ñu dugg ci dëkk bi def ñaan ni ñu def ci dëkk bi pour dëkk bi mëna am jamm dëgg la. parce que liggéey boy mënd def muy talé muy ay entreprise te dëkk bi amul jamm du feeñ. dëgg la. te ñi di dé ci dëkk bi nii ñi ngi wàññi lu beri beri bëri ci Sénégal te xamuñ ko. Mhm. voilà dëgg la sëriñ bi dee gi bari na ndax léeg-léeg nga gis nit jël pa di ko dut moroomam mu daali fatu nga japp ni sax li wax dëgg fa mbir mu mu mu lalu la euh, sëriñ bi ba tey mu doon loo xamante wax dëgg fa yàlla instant bi sénégalais yi njàqare ñu am mooy ni dee yi bëree fii ci Sénégal ah li ngay gisee toog ak nit léegi-léegi waxtaan ak moom jékki mu jam ko paaka ñu ni diw dee na yaa ngi tey jàpp nga ni sëñ bi est-ce que loolu noonu jàpp nga dëgg dëgg dëgg bu ci nguur gi taxawee dëgg koy junni yooyu nga xamante ne ñoom ñoo dugg ci dëkk bi mën nañu fay jógee loolu gis nga nguur gi ni mu ci taxawee waaw ay yokk ay homme de tenue mm-hmm. yokk ay gendarme du dara du dara loolu ñaan la ci wàllu baatin. ñaan la. ñaan la ci wàllu baatin te buñ ko defee. Mhm. dee gi dina wàññeeku. accident yi dina wàññeeku ñiy dem ci géej gi duñ ko xalaat sax ba koy def te ñoom ñoo la gën a xam fi ñuy jaar de mhm. ñoom ñoo la gën a xam fi ñuy jaar. billaahi lazi laa ilaaha illaa huwa. dëgg la voilà. Mhm. macha allah ayca mi ngi loolu sëriñ Jili Sët Lëg Daaru mu doon jàmbaar loolu ci wàllum xam-xam waaye tamit mu doon jàmbaar loolu ci wàllum lasaraar sëriñ bi. tey jii nag xam wax deug fi yàlla donte xol bi neexul te da nga don ko xamante dang ci ñak sa mbokk euh, tay bo amul loy ñax jeune yi lan nga leen daal di ñax awma lu may ñax jeune yi kilifa yi lay ñaan ñu war ñu def li ñu def ci dekk bi. Hmm? wax naa ko tay bi may sama mujjentelu émission ma ci wax man dina tok li ma war def dina ko def. Hmm. voilà. jeune yi amoo dara lo ndi wax. amul len lu ma len manam jeune yi mo moo dafa mel émission bi li la jox yeb deggu jeunes mhm. yi li leen yóbbu ñoom xamuñu ko. dëkk bi moo soxla ay ñaan moomoo. dëgg la ñaan im soxla nañ ko fi def kaabel ñu wàcce ko nag yu weex ñu war a rey ñu rey ko. Mhm. pour jàmm ak salaam mën a am ci dëkk bi. mais loolu bu ñu ko deful pour dëkk bi pour jàmm ak salaam am ci dëkk bi muy ci géej gi muy ci tali bi muy ci nit ñi day nekk jafe-jafe. Mhm. dëkk bi jamono ñu dafa tar moomoo dafa gën a tar. dafa gën a tar waaw. te bu nekkee ànd nga ak sa xel ngay xool eh, li xew ci dëkk bi nii. waaw tey gi ni mu bëree accident yi fii nii nii. waaw am automatiquement di nga xam dëkk bi dafa gën a tar. liñ ci war a def nañ ko def li nekk ci dëkk bi di yàqal nit ñu di dugg ci xelu ni ñi leen def loo xam ne waruñ koo def mu dañ mais loolu bu amul rek pour maanaam dëkk bi neex day nekk loo xam ne jafe-jafe lay doon. jafe-jafe lay doon. Mm. sëriñ bi sama question bi mu mujjee bi may wàcc bi may bi may wàcc bokk na ci boobee nga xamante ne barki démb am na 16 morts bis bi nit ñi nekk ci biir te mënuñoo loo ci wax sa boobu. li ma la ci expliqué dama la ne moomoo. waaw. ñaan nit ñi dañ ko euh, ñàkkal fayda. dëgg la. yenn sëriñ si tamit maanaam tax ñu bari ñamatu ñoo dem ci sëriñ di ñaanlu mais dama leen ne ñëpp yamuñ. dëgg la. ñiy gàmm mënoo leen tere gàmm ñuy race de mënoo leen tere race de moom moo sa liggéey bii nii am nañu ci nekk di def loo xam ne yow da nga am sa licence euh, euh, ñu jox la gratu journaliste. dëgg la am ñoo xam ne amuñ ko te chaque jour ñoo ngi def loo xam ne maam yéen neexu leen. dëgg la kon bu ngeen jëlee sëriñ si yëpp ne ñoo ñoo yam. Mhm. ñaan loo tooleen. génne mhm. tooleen ay sarax yéen a ngi ci erreur bu mag. dëgg la. émission bi wax naa la ko nee naa la nit ki rawxaan bi nga xam dafa ànd ak moom dina ko laaj benn sarax. Mhm. du ko nangoo def di ko laaj benn sarax du ko nangoo def ba mu dugg ci oto dem fenn Mm-hmm. mu këpp oto bi wala mu taal oto bi kooku day lor boppam loraare ñi nga xam ne maam ñoom la fa nekk loon mm-hmm. nit dafa war di jóg ci boppam di sangu di raayu di takku di def ay sarax boo bëggee am jàmm dëgg la voilà macha allah a mi ngi noonu sëñ bi kontaan nañu waxtu bi daan nay jeex di ñaanal jàmm di ko yëpp di ko ñaanal sama bopp ak samay ñaari waajur macha looloo doonoon waxtaan bi tey ak Serigne Djily wax dëgg fa yàlla tey waxtaan bi mënul neex ndax nag dañ ko fekk ci foo xamante ni wax dëgg fa yàlla ci ay xarxar la dañ ko fekk sax ba mbuur këram gi daal di seq moom waxtaan mu wax ci li ci xam ndax nee na moomoo lii moom faa ma wax ko ndax sama xool neexul ndax boo xoolee ni xam ne xol bu tàng lay waxee ndax chaque jour day dëkk di wax te émission yi chaque jour yéen koy gis ci TikTok yi ci YouTube bi ñu jàkkaarloog moom muy wax ay révélation ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox nag dig daje beneen incha allah ak yeneen di waxtaan jërë ngeen jëf